mooy télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ning ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wér gu yaram santé animal jox la kàddu. waaw fi may bésee teef élevage bu Baye Bada Dieng euh, man la Pape Dieng doomu di leen ziar di leen nuyu yéen ñëpp. waaw ku xamul Pape Dieng tey ngeen xam ko ku ko mësul woon gis tamit tey ngeen xam ko axlu élevage yëpp yaakaar naa ni kooku kenn du ko présenté ndax man mii di wax ak yow xam naa lu bari ci moom Pape tey bi nga dugg see ci foire bi sa première réaction ci foire bi. lan nga ñu ci mën a wax. non foire moom bi ma dugg see li ma yëg mooy fii ku qualifié wul jàmbaar nga ku qualifié wul jàmbaar parce que niveau bi moom léegi dafa yëg trop wax dëgg yàlla niveau bi ma fi gis ren moom wute naa niveau bi ma fi gisoon 2018 dëgg yàlla affaire bi moom ñëpp ndaanaan lan moom ay champion daal ñoo fi dajaloo. macha allah loolu am na solo Pape Dieng nga jógee ba Touba indi fi un grand champion nga présenté ñu champion bi ak ñi mu àndal. waaw champion bi mooy Majib doomu Boy Talla la yaayam doomu Biko. mi ngi ànd ak euh, bébé ummi mu ñëwoon doon def confirmation am mu nekkoon euh, troisième maire annuelle 2018 ah di doomu rafet naa këla di Miss Picasso di doomu bébé ummi moom tamit euh, ren mooy première participation ren mooy première participation ren mooy première indi Kumburu indi tamit champion Mbour foire femelle femelle espoir muy bien di doomu rafet naa. macha allah loolu am na solo rafet naa moom yaakaar naa ne ak lu yëpp xam nañ koy kooku ndax jaloreem. du fay ilaa yow mi diini macha allah nga wax ñu lan ci maal bi. noo maal bi moom euh, doom booy taala la papaam tamit di ndaanaan di champion euh, yaayam tamit di di doomu di surtout Adel euh, di doomu Biko ñu gis ko am ci moom yaakaar kon ñun liggéey nañ LCS ba pare dugaloon Cheikh Diop bi doon yokk buddi bi léegi ñu dugalaat booy taala bi gànde bi pour mu gën a yokkee ko quoi. mu gën a ñëw. macha allah loolu am na solo Pape Dieng ñu gis euh, Touba ngeen am fa taxawaay bu mag a mag a mag ci élevage lan mooy secret bergerie Taïf élevage. bergerie Taïf élevage moom bi mooy ñu dañuy demee sans complexe ak yaatal lépp yéen ñëpp jàmm séq ak ñëpp jàmm loolu mooy secret bi rek élevage moom boo si nekkee amul complexe koo gis mu yor lu baax nga yéene ko dem ànd ak moom boo si mënee am si boo si mënut am tamit. bu la mënee may tëb tamit nga jël ko ñu noonu la. macha allah ma gis bergerie boobu ku fa dugg mën faa génnee xar lan mu lan la lan moo tax xar yee yomb wala yéen da ngeen di partagé nu mu leen neexee élevage bi ni ngeen koy doxalee daal yéen a ngi jàppale askan bi lan moo waral loolu. non paa bi xam nga rek moom mag la te xam nga mag moom bu yàggee dox lu bare bari da koy da koy romb xam na lu bare bari loolu la rek dafa jàppee ñëpp ay doomam ñu des ay jarbaatam ñu des ay rakam kon moom bëggul nit bëgg alalam du si mën a jot mu koy sikk ëllëg wala mu koy mere man mii doomam nga xam ne man maay taawam nekk ak moom ñu bokk liggéey bi man tamit noonu lay doxee damay doxee toujours damay bëgg sama ñu ñu topp si moom ak keneen ak ñeneen mën tamit man a jaar si ay tànkam quoi loolu la rek BGTV élevage noonu lay joxe quoi dañuy dañuy boo bon exemple bëgguñu ku ñu mere ak ku ñu sikk quoi. loolu am na solo Pape Dieng Pape Dieng euh, ngeen di waaj foire bu mag foire Touba lan ngay wax waa Touba lan nga leen di waajal. non waa Touba moom dama leen di wax ni nan waaj rek def comme Adam sas nañu Adam sas nañu ak Mbour. kon nañ góorgóorlu bu baax ba nga xam ne man man fekki leen xam naa mënuñoo dab adam moom mais ñu jéem a roppi mbuur rek kon ko mbuur njëkkoon fowaat si année bi. macha allah loolu am na solo Pape Dieng nga fàttali ñu bergerie bi fan la nekk ak adresse am ak euh, sa numéro téléphone. waaw bergerie bi mi ngi Mbacke euh, route de Touba ñaari Baye Fall yomb naa xam neex naa ñëw numéro téléphone mooy 77 632 91 77 795 08 51. am beto fii ma jaar. raza de